bari na ci fan yi li ñuy dégg baatu influenceur sénégalais ñoo ko xamul wala man mi di wax ak yéen maa ko xamul ab laaj la wu ma dal dee samp dëgg la nag baatum influenceur comme ni ñu ko déggee rek moo di koo xamante ni audience am am na doole lool rawatina ci réseaux sociaux yi lu baax la waaye nag war nañ see defub ab taxaw seetlu bu mag ci ñooñee nag ñuy woowee influenceur ci mim réew dëgg la nag dañoo influent waaye ci lan la ñu influent loolee warees nañ ko mun a xam ba tax ñu war leen a accordeel benn dayo bi li ñu si xam mooy wax lu bon saagante xastante xaayuwante sutura sosalaate tamante dëmm weerante maanaam lépp loo déggee ci wàllum safaan rek ñoo ngi ci ñooñee naka ñuy tuddee ay li ci rawati nag mooy Samba Mbayaan gi nga xamante ni ci moom lañ ci nekkee bu ku jóg rek bugg a doon wala ku jóg rek ne ab influenceur la bëgg lu yomb la ndax lii ñaaxarañ loo nekkee Boucher Cheikh Senghor ak ñu mel ni ñoom ñëpp nag lii ñu nekkee yomb na trop te yóbbu na ay ndaw yu bëri ci ab nasax woo xamante ni si kenn mu ne su koo wax ndax amin gi yomb na trop du caagin nag dañoo soxor déedéet sore na lool ak loolu daa fekki ne ñun la yàlla natoo artu ñuy artu rek waaye naka loolee yëpp naka bu amee suñu ay kilifa ñoo ko yombal ndax ñàkkuk fayda dëgg lañu ci ànd ak ndax lii Macky Sall def ca Paris ak ngóor soosé nag loolee moom dooleel mbon mënu koo weesu tëj lu ab saagakat ba noppi di honoré maanaam di dooleel ko nga xamante ni si waxkatu njombe la te wax na la fi lu ne loolee képp nag mooy dox ci réew mi ndax ki ñu ñu dénk réew mi ci jamono ji moo ko jiite ab xët la woon loo xamante ni si ni moom la dëkkee dóor doom làq doom def seen bopp ay star yu kenn xamul ba noppi nag yegg nit ñi fa iblis yeggul influent boo xamante si ci fecc way wane say cër jaayu mbon mbon googee rek la ñuy influen mbon googee rek la ñuy influencé ci nit ñi waaye nag xam ngeen ne lu waay tëx tëx wala lu waay gumba gumba xam ngeen ne maam Balla Mbow bokk na ci mennum influenceur yi que moom rek la ñuy gis muy jàllale ay message yoo xamante ni ku ko seetaan wala nga déglu ko da nga si jëlee dara foofee lañ doon xaare ñi nga xamante ni si ñoom la ñu duppee des influenceurs te ñu nekk ci réseaux sociaux yi waaye ne influenceur nga li ngay def nag képp koo xamante ni gis nga ko te nga am xel bu mat rek lam laay njëkk a wax moo di cambay xeeb la doyadil la li ci gën a garaaw nag mooy ku nekk nag yaa ngi yóbbu sa bopp foo xamante ni fii yeggoo fa faa ay dara faynara dëkkee tamante dëmm ndax loole moom la ñuy xaar ci ay influenceurs yu baax waaye Sénégal ngelawaay bu ñu foyee suñu xel yi waaye topp TikTok bi di saagante di waxante lu bon te ñii nga xamante ni ñoo ko créé ñoom lu am fula ak fayda rek lañ ci nekk waaye fii ci Sénégal day njombe rek te nag li ci bon yëpp naka booy xool borom daraja yi génnew seen loxo ndax ñooñu rek la ñu teg ci jamono jii te ci jamono joojee ay ndaw yu xarañ yoo xamante ni ñoo ngi yëngatu ci wàllum technologie di def ay découverte yoo xamante ni amaana buñ ko dooleelee na indil njëriñ réew mi waaye ci jamono joojee ñooñu kenn faaliwu leen xanaa menn Pape Siri Fall animateur ca 2STV la ñu gis muy favoriser di promouvoir ñi nga xamante ni ñoo nekk ay tout tànk di yëngatu ci wàllum découverte rawatina ci wàllum technologie mais part ñi ci des seen mbiru bopp ay woy ay fecc xasante saagante rek la ñuy promouvoir moom la ñuy favoriser te daanaka booy xool nag lépp lu ñëm ci wàllum baax ñooñu lañ koy jëmal ndax loolu lañ doon xaare influenceur ndax loolu lañ doon xaare suñu autorité déedéet dafa fekk ni ci jamono ji li ñuy gën a favoriser mooy mbon kon tey jii ndax ñooñee ñu duppee ay influenceur dañ leen di bàyyi rek ñuy influencer ci mbon ak ay jëf yoo xamante ni dafa salte lool vive mon pays le Sénégal nga xamante ni ngir ñu xam la ba nga am dayo lool faaw rek nga nekk ci yoonum mbon am dayo boo xamante ni daanaka kenn amee su ko loolee nag Sénégal rek la am ñu war see bàyyi xel